asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum mbokku julliti asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Aynou Mady TV ñu ngi nuyu xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Alaaji Mansour di ko ñaan yàlla gudd fan ak wér di nuyu rakkam Serigne Maodo Sy di nuyu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalifa maam Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu waaye di nuyu Serigne Mahi Ibrahima Niass tabaarakallahu di nuyu Serigne Cheikh Ahmad Tidiane di nuyu ci seen tur mbooleem ci Sénégal yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla bàyyi ci kanamu askan wi te yàlla àggali seeni mbébét ak seen i yéene ak lépp lu ñu yéene ci def ko yalla na leen yàlla may kattan bu ñu ko defee. mbokk jullit yi ñu ngi nuyu baax Serigne Habib si ibnu Alhaji Abdou Aziz Sy bi nga xam ne mooy responsable moral Aynou Mady TV tey ñu ngi fii ci Koungheul tabaarakallahu Koungheul nag di dëkk bu spécial ci diine. di dëkk bi spécial ci liggéeyu mag ñi fa tabaarakallaahu ñu ñëw fekk si fi nag koo xam ni mbokk la xarit la soppe la tabaarakallaahu di Seydil Hadji Malick Cissé muy woote bés bi nga xam ni dafay wax ni moom wooteelu ko boppam ñu ne ko kooko wooteel mu ni ki jara wooteel muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag di fukkeelu édition ak benn rawatina ñaari at yi nga xam ni corona moo fi jaaroon ba amul waaye tabaarakallaahu teewul xolam ak yéeneem ak jàng alquran ak salaatu ala nabi yooyu yëpp def na ko kon bu ñu neexee sax mën nañu wax ni bii mooy fukkeel ak ñetteelu at bi muy wooteel sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bés bi nag mu ñaan ci jàmm ci àddina bi ñaan jàmm ci Sénégal ñaaneel képp kuy doomu aadama rek waxatuma sax ngay jullit nga am jàmm fa tabaarakallaahu kon ñu jox ko kàddu gi moom Seydi Hadji Malick mu nuyu mbokk jullit yi waaye tabaarakallaahu euh, wax ñu solo bés bi ak wàccaayu bés bi ak fan la ñuy jëm ci bés bi incha allahu taala feeg gan yi di ñëw. jërëjëf sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooleem képp kuy seetaan télévision Aynou Mady ak foo mën a nekk ci gox yu fasantikoo yi ci ñeenti xibla yëpp ñu ngi leen di nuyu ci nuyu bi ñu yàlla boole di nuyu waa àjjana di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di nuyu bu baax euh, mbokk yi nga xam ne ñoo jógee ko mbuur euh, ànd ak Aynou Mady ñëw fekk ci fi waa Koungheul ñu ngi leen di siyaare it waa Koungheul itam fa tabarakallahu ñu ngi taxaw ak euh, kilifa yi nga xam ne mën naa wax ne imaam raatibu Koungheul la ñu ni taxaw ndax moo topp ci imam ratib ba te imam ratib ba am na ngant kon mooy imam ratib bi imam Alioune Diop itam di imam boo xam ne bokk na ci grande mosquée yi gën a rëy Koungheul fa tabarakallahu ak suñu wëlëre suñu xarit suñu jarbaat Ousmane Ndiaye nekk immigré nekk Italie di taalibe moom itam sopp tarixa bi sopp yonent mu Muhammad ak suñu mbokk mi nga xam ne moom itam waa kër Cheikhul Khadim la wax dëgg Yàlla ñu bokk fi daje ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di la gërëm Cheikh Abdou Fatih bi mooy fukkeel ak ñeent ci édition wala fukkeel ak ñett waaye fukk ak benn yi la ñu def ci defin bu mel nii liñ ci jublu mooy euh, dolli suñu wàll ci liggéey liggéey yonent yàlla Muhammad bi ko yàlla yónni ndax liggéey yonent yàlla Muhammad bi du jeex yonent bi dem na waaye liggéey bi du jeex kon nag ñun dañu gëm ne yonent yàlla Muhammad ba léegi mission bi kenn ku nekk rek wan nga ci bay sa waar moo tax ñu jël bis bii tuddee ko bis yonent yàlla Muhammad buñ xëyee jàng ci alquran fii rek ci jataay bii nga xam ne ci suba gi def nañ ñeenti kaamil bokk la li nga xam ne mbokk yi nekk ci gox yi fasantikoo yi jàng nañ lim boo xam ne bi ñu ko dajalee yegg ñu ne yegg si ci 313 kaamil moo xam muy Medina Baye Niass li ñu yónnee Touba ba ak lim ya ak dëkk yi nga xam ne suñuy wëla rek ay bokk nga fa ba ñu yónnee seen lim yi bi ñu ko dajalee lépp nekk na cent 313 loolu yëpp nag la tax ñu def ko mooy jàmm ci réew mi jàmm ci askanu Sénégal loolu rek lañu ci jublu yoo yàlla gën a wàcc waat jàmm ci jullit ñi ak fu ñu mën a nekk ci gox yi fasantikoo yëpp euh, li ñu jublu ci itam jullit ñi war a bàyyi xel ak booloo ak bennoo ndax bëccëgu yonent bi la murit bi sa alayhi wasallam murit bi bu toogee dana gis boppam tijaan bu toogee gis boppam ki nga xam ne du murit du tijaan sax bu toogee day gis boppam ngir sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax sayyiduna muhammad rek moom nga mën a toogal ci benn jotaay lënkale lépp ñëpp dajaloo ndoor ci moom moo tax ñu jël bis bi dëppee ko yonent yàlla muhammad mooy bis boo xam ne ñëpp fi bokk dajee moo xam ak turux yu ñu mën a bokk ma profité waale ziare waale xalif général de Tidiane xalif général de Mouride ak euh, Medina Baye lew leew nañ seen ak turux yëpp rek seen i xalifa ñu leen di ziare di leen ñaanal yàlla yokkal leen fan wu gudd wa ànd ak wér yaram di ñaanal umma islamique bi yàlla yokk jàmm ci réew mi di ñaani Sénégal ah at mi mën na am élection am fi waaye bu demee ba nar amit yàlla yàlla def mu élection yu sedd guy ci barki Seydina Mohamed loolu it bokk na ci yéene ren bi pour élection yoo xam ne élection yu jàmm la lundi ñëpp mën a delluwaat liggéey Cheikh Abdou Fati te kenn bañ a am benn jafe-jafe kenn bañ am benn gàllankoor ci barki Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam gannaaw bu ñu jàngee alquran ba pare dañuy noppalu bu ñu demee ba trois heures nag danañ commencé waat liggéey bi danañ def benn exposé ci wàllu héritage bu fi xajee bu paree nag danañ continuer ak suñu mbokk suñu sëriñ Cheikh Abdou Fati Niang ndax moom nee naa ko xoolee wuñ la doo conférencier ñun suñu sëriñ nga ndax ñun dafa lu ñu tarixa bi la ñu tiitaroo nee naa maa ngi koy tooñ sànq ku sant sama mbokk sant si ma ne ko ñun sa maamañ ci boole ñun suñu maam Diop la sant mënoon naa nekk leneen wala mun def ko defi comme Lat Dior Diop Ngoné Latyr Diop waaye bu ñu sa maam génnee ca waaru Lat wa sa maam moo ñu dugal ci lii kon nag ñun yéen la ñuy jàppale ci seen toolu maam bi kon nag ña ñun rek lañ lay xoolee noonu rek lañu la jàppee mooy suñu kàddu démb mooy suñu kaddu tey suñu sëriñ nga sa taalibe la ñëw nga ci sa taalibe ñëw nga ci say taalibe ñun ñi fi taxaw ñëpp jàpp nañ ne tey yaa fi gën a jege El Hadj Malick yaa gën a jege Cheikhul Khadim ngir maam Muharram Mbacké kon taxawaay boobu rek la ñuy xoolee ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan jullit ñëpp yàlla yokk jàmm ci réew mi ay numaa yàlla gën ko yëkkati gën ko taxawal lépp fépp mu bëgg a yegg rek yàlla na fa yàlla yóbbu ay numaa di ci barke yonent bi di gërëmite waale sëriñ Habib mi nga xam ne wax dëgg yàlla fa tabarakallahu ku baax la euh, dinaa wax benn mbir boo xam ne man ak sëriñ Habib la daloon dama jógee Koungheul ñëw Tiwaawoon ci kër Thierno Seydou Nourou Thierno Seydou man ñu war a jàll dakaar boobu Moustapha Lu mu ñu yónni ci Thierno Seydou Thierno boole ma ak sëriñ Habib ñu war a dem Dakar bi ñëwee ba Pout gendarme yi jàpp sëriñ Habib biñ ko gendarme yi jàppee waaye nee na sëriñ bi fàtte permis nee na waaye sëriñ bi nangu la wax gendarme ne ko man maay sëriñ Habib di doomu Alaaji Abdoul Aziz Si xalif général di Tijaan nangu ko ko wax ba keneen moo feeñal loola gendarme bi ne lu tax waxuloo ma ne yow yaay doomu Alaaji Abdoul Aziz bu ne ko déedéet damaa def lu dul yoon comme damaa def lu dul yoon nag duma fi indi benn askan naan la lii la wala lële la damay toog rek muñ ba su ngeen ma jéggalee ma dem xayma na matadik doomu aadama moo ma jàpp loolu ku baaxul doo ko man ku ku matul doo ko man ku doonul doomu kilifa doo ko man ku kilifa nekkul ci yow doo ko man te loolu booba sëriñ baa ngi gën a nekk ndaw euh, ci ci ay at boobu loolu yàgg na lool lool lool fa tabarakallahu kon nag ñu ngi koy ñaanal jàmm yàlla ak sutura si yàlla di ko ñaanal umma islamique bi yëpp di gërëm bu baax mbokk yi fi ñëw yëpp di ñaan yàlla képp ku fi ñëw rek yàlla mi faj aajo yi yàlla na yàlla faj seen aajo bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi daal kàddu yooyu lañ bëggoon rotal di ñaan rek xay numaa di at mu jot mu ñew bokk ko ñun euh, dana fexé sax inshallah at yi di ñew ñu commencé def sax avant première bi ay numa di waxon nga mako sax waye ci suma ki rek may waaj naan may dem Dakar lay fay jaar fan ba ma mujj xat waye bu neexee yalla a part de cette année inshallah taala dañ fasiyene ay numa di def avant première bi comme ni ñene ñi di defé euh, ñu ngi lay gërëm bu baax di la sante bu baax di gërëm imam yi fi taxaw yépp di gërëm mbokk yi xarit yi am di jamm yi di ñaanal ñëpp jamm yalla ak sutura yalla di ñaan yalla at mu jot yalla nañ fi dajee ci jamm kenn ku nekk wat ci jamm ci barke sayyidina El Hadj Malick doo doo doo tëj te laajuñu euh, jëf ju rafet ji nga defati ndax yàgg nga ko def macha allah ñëpp di ko rafetlu mm. waaye nga rend ci hommage koo xam ni soo ko rendee hommage yaakaar naa islam nga rendre hommage muy alxaaji Mouhamadou Mansour Diop radiallahu taala anhu bokkoon ci nitu yàlla yi bokk ci borom xam-xam yi tabaarakallahu alaaji Mansour turandoom yar ko jàngal ko yebal ko fii ci eh, mbokkam eh, sunu maam daam si bi nga xam ni man moo jur sama wayjur bu jigéen tabaarakallahu eh, loolu nga defal ko askanu siyeen yëpp wax naa ni sama yaay ci boppam man moo ma boppam téléphone di bég ci jëf ji nga def jëme ko ci alaaji Mouhamadou Mansour euh, Diop radiallahu anhu jërëjëf euh, Cheikh Abdou Cheikh Mouhamadou Mansour euh, buñ koy rendre hommage dafa jaadu ndax umma islamique bi yëpp lañ ko defal rawatina nag waa kër mam mam Maodo ndax ku ne xam na ne fa la nekkoon waajuram wu góor daf ko tuddee Serigne Mansour ba pare jëlaat ko tegaat ko ci loxo Serigne Mansour ba muy dem gàmmo la waajoon mu bind lettre ne ko kaay gàmmo ji booba ndaw day bëgg tukki mu waaj gàmmoo gi mu bind lettre jox ko turandooram ne kooku xam-xam laa bëgg ci moom ak nga defar ko. mën naa wax ne Mouhamadou Mansour addunaam yëpp daf ko jàng ndax waxu nitu yàlla du doon caaxaan ndax comme nitu yàlla yónnee na ci sëriñam ne ko laa bëgg ci moom nitu yàlla téye. bu ko jëfee rek loola dana dem ba dañuy dañuy wax ne day de mujj ëpp mbokk mi sax dañu wax ne ko naan li mu jàng mi daa mujj ëpp jàng mi doy na na ñib si ci réew mi loolu yëpp na wax dëgg yàlla bu nekkee ci loolu nekk Tiwaawoon ba génn àdduna waa Tiwaawoon def lañ ca war a def yëpp rawatina wax dëgg yàlla sëriñ bi keroog moo ko taxaw mën a wax ne kër Maodo yëpp taxaw wax dëgg yàlla ndax sëriñ Mbaye moo ko jiitee njabootu ànd ak njabootu Alaaji Maalik yëpp wax dëgg yàlla fa tabarakallaa ñu sant leen ci loolu di ko rendre hommage itam ngir nag suñu deret la waaye déedéet moom suñu sëriñ la woon ndax suñu doomu sëriñ la loolu lañ daan dund suñu gisee bi mujjee eh, daf man nag doomam papa leen ñoo toog di waxtaan ci kaw mu am yu mu dénkaane yu ma dénk ma nangul ko ko ma tegal ko ko ñu ne ko man nag jàppal ne sab taalibe laa ndax man maam sa baay laa lay xoolee mu ne xam naa ne njureel gi moom jaay nga ko bu yàgg jëndee ko taalibe te nangul naa la taalibe googu itam loolu fa tabarakallahu kon nag kooku bu làqoo mel noonu ci ñun yegg ak ñun foo xam ne ci wàllu baatin wax dëgg yàlla sori woon na lool suñu xel mënu ko ñàkk daj at mu génné aduna faaw ñu delloo ko ñukkal bu ko défé wuute ci ñëpp nak wuute ci umma islamique bi yëpp rendre hommage son excellence Cheikh Mahamadou Mansour l'ancien l'ancien ambassadeur de Inde ba pare nekkaat itam kilifa diine gu mag nekkon ko xamné ñëpp xam nañ ko ci réew mi ak bitim réew loolu motax ñukoy rendre hommage di di leen di jàppale itam famille niñ ko waxé rek ndax sen talibé la sen doomi talibé la waxna ko rek ci zawiya Laaj Malick bi sëñ babakar abdou Aziz taxawé mané ko ñun nak duñ sëriñ fi ñu taxaw ñun taalibe lañ fi suñu maam sa taalibe maam la ñun say taalibe lañ kii tëdd sa taalibe la sa taalibe maam la woon loolu la ñu gëm mu taxawu ko ñaanal ko yàlla kon nag ci loolu lañ nekk ba tey ñaan yàlla rek yàlla def ñu dëgg-dëgg taalibe Tijaan dëgg-dëgg taalibe Laaj Malick Si yàlla nañ dund ci loolu dee ci loolu ñun daal bëgguñoo nekk lenn lu dul taalibe Laaj Malick Si ah, fier nañ ci loolu ñu ñaan nag bis bi nag ñëpp lañ ko bokkal mbokk tarixa yëpp lañ ko bokkal ndax diine lislaam bu wootee ñëpp war a ñëw toog ndax yalla mo ne waxtasimu bi hablillahi jamin wala tafarqo murid day bokk xaadir bokk laayeen bokk même ki gëmul ki nekkul ci benn tarixa sax day daal di bokk moo tax dañu fi gis façon tariqa bu ne dañu fi dajee nit ku ci nekk ku ci amé cadeau dañu fi jël cadeau pour wane ne julli ñi dañu wara a nekk ben dañu wara benno lool mo ñu dajale lool mo waral hommage Cheikh mohammed man sourbi mi ngi noonu jërëjëf euh, Hadj Malick Cissé kon xam naa mbokku téléspectateur Aynou Mady lii tabaarakallahu dañu wax ne rek euh, lancement bi la film bi ñëwagul incha allahu taala bu ñu demee ci kanam tuuti waxtu takkusaan daañu teeru gan yi incha allahu dalal leen mboolem autorités yi dinañu ñëw kilifa diine yi dina ñëw mbokk gi daañu ñëw xarit yi ak soppi dëkkandoo yi incha allahu taala ñu joobee nag kan mooy Sayyiduna Muhammad bégal jullit yëpp ndax rasulullahi ñëpp koy bégee Alaaji Malick yàlla nga ko yàgg wote ci téméré at ñun yàgg ko téwé ci barké Seydina Ahmad sallallahu alayhi Wasallam. kon ñu jox nak ki nga xamni mom mo top ci imam rati bu di Imam Bayi mu def ñaan te ñaanal nak télé bi di ma madi TV mu jëm ci kanam jëm ci kaw inshallah allah. jëf sang bi ñu leen nuyu di siaré siyaare di sànni ci kaddu yu gatt rek kaddu ñi sanni moy Alaaji malimi mi def loko war la ndax mamam bi nga xamne mooy papa Mansour Diop Mansour Diop mu nga wax léegi ñu kon koon Alaaji Andin Diop Tiwaawoon la nekkoon jàng fa ba am jàngam noppi sëriñ bi yewee ko xebal ko ne ma jox ko paas ne ko boo dem fa sa paas jeexee nga toog foofa mu bi ñuy ba ngel paas bi jeex am na sax ñoo xam ne am na feneen foo xam ne fala la njëkkoon a yem gannaaw gi mu dellu paasal ñëwul Koungheul xam ne fii la bi ñu fi la ko yàlla ubbi mu nekk bi ma xadam boo xam ne fa tabaarakallaaw réew mi yëpp ñëpp xam ak kilifteem kon kooku jar sëtam bu defee lii wax dëgg def na lu ko war kon alaaji ni nga def noonu rek la li mu ci gën a neex nag mooy def ko ci weer woo xam ne weer wu am solo la muy rajab ndax rajab bi sa àlsan bi wax ne a rajab saxarullaahi dégg nga rajab bii ñu nekk nee na yàlla ci bopp moom moo ko moom soxbaan sëhri man muhammad ramada sëhri ummati kon fi nga xam ne fi la wootee ki mu ko xooteel fa tabaarakala am na solo lool te xam ne ku ne xam ne weer wi mooy anniversaire jullit ndax weer wii ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem jox ko julli mu neexal mu gën a fort ci jaamu xeeti yàlla yëpp loolu it loolu lañ ci doon sànni ngeen baal ñaax kon ñu bokk jàng Faatiha aati ko suq loola fàlla xen naa sa faate ñaan itam euh, télé bi yal yala dooleel ko yal na ko àgg ci àddina bi fépp foo xam ne àddina bi àgg na fa yal na fa télé bi àgg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 allahu laa ilaha illa huwa al hayyul qayyum laa taaxusuhu sinatun walaa nawmun lahu maa fi samaawaati wa maa fil ard man sallazii yashfa'u 'indahu illaa bi'iznihii ya'lamu maa bayna aydiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiituuna bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa'a wa wasi'a kullu samaawaati wal ardi wa laa yuhiituuna bi shay'in بركة ألم نصرح لك صدرك ودهنا عنك وزرك إن قد صهرك ورفعنا لك سكرك بين من هو يسرا نمن هو يسرا بين من هو يسرا نمن حس يسرا فإذا فرحت فانتم إلى بفرقم بركة بسم الله نقول والله الله الصمد لم يلد ولم يرم يكن له بسم الله الرحمن نقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر نفاس في وقد ومن شر حاسد إذا حسد بركة بسم الله نقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوس الناس الذي يوسوس في صدور والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربي اغفر لي ولوالدي والمسلمين والأحياء والأموات ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من القاسين بركة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من ديام الأهوال والأفات وتقل لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بين أهل الدرجات وتبقس القايات من جميع القيرات من جميع القيرات في نهاية برمان بركة الله وسلم سيدنا محمد الفاتح المغرق والخاتم بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم إن الله وملائكته يسرون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله يعني الله